wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ghuril mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan seen télévision ma fatul Bichri ñi ngi am mbégte nag teew fii ci kër Serigne Afia Niang mi nga Serigne Afia mi nga xamante ne mooy imaamu euh, jumaay tubaa tey nag ñu fas yéene waxtaan ak moom ci waajtaayu màggal gi mooy waajtaayu màggal gi nu jublu 2016 incha allahu taala fas yéene mu fas yéene waxtaanal nu lenn ci Serigne Touba ak ni nga xamante ne noonu la amee bis bii nga xam ne mooy bisu màggal Touba ak pastéef bi nga xam ne war nañ koo def ci wuy si woote Serigne Touba bi ndax moo wax ne koo xam ne sama mbég sa mu dikkee nañ ma sant la yàlla kon nag sant googu ak berndeeg jaamu yàlla googu lañ fa yéene sëriñ bi indil nu ci dénkaan bu am solo ñu def ko ab yóbbalu ci waajtaayu màggalu Touba 2016. laa tafaloo chein bi xëyri idni in shartun fi qabari cheini ab taalibe moom yàgg naa dàkk lu neex sëriñ bi di ko di ko def te incha allah mu mën tax daje ngërëmul sëriñ bi lii nag moom du dàkk muy màggal gi ndigalu sëriñ Touba la am murit nag lu gën a rëy ci moom di def lu ko leera suñ jox ku digal yaakaar naa amut te màggal gi moom du ñu kenn na ko sos du ñu leen na ko sos suñ tubaab ko digle moo wax ni jaar na ak boroom fi mu jaar ak boroomam sëq ak li sëq ak boroomam boroom jox ko ndigal mu mu koy sant ci bis bii di fukki fenn ak juróom-ñett ci weeru safar mu wax ni lépp lu ko lépp ko su ma mas a ci ay nattu ci biir bi muy liggéey su bis bi mas a agsi ful nañ ko natt yoo gën a metti wante bi muy demee itam ba fay des dara des lu muy fay noonu la pay gee demee bis bu nekk bu waxtu bu bis bi agsee su lu ko suñu borom mas ful dina ko fulaat boole ko jox jox ko mu ne loolu nag gis na ne sant moom ak cantam tuuti na ci mu tax na képp koo xam ni dangaa aju ci moom wala mbégam di sa mbég wala euh, mbiram saf la nga di ko sant la bis boobu de sant nga moom bernde la dara ëpp ko ci doole ak jaamu yàlla bis sant mu ne bis bu jaamu yàlla la waaye bernde lu ca am solo la xam nga sëñ bi dafa waxoon ne nañ ko tuddee tabaskiwaat tabaskiwaat bernde la dafa waxoon ne dafa waxoon nañ koy màggale maa ngi tudd ko tabaskiwaat tabaskiwaat moom bernde la kon ndax lu neexee ne tabaski lay doon gannaaw tabaskiwaat la ko maa ngi tuddoon ba sëñ bi nañ ko tuddee màggal dindi baat tabaskiwaat tur walañ dindi waaye maanaam maa ngi fa tabaski moom bisum noos la kon ku nekk ni nga fonk tabaski ak ni ngay tabaskee lañ jógi su mag ñëwee nga màggal ko noonu ba am na ci mag ñi ñoo xam ne ñoom booba lañ bàyyi tabaski waaye lañu war a def tabaski bi su màggal lañ koy def ngir sant ko sëñ Tuubaa ngir war na ñoom lañ am sëñ Tuubaa dañ ko jox kon bis la boo xam ni ñu ngi ciy dénk suñu bopp di dénk murid yëpp ne bis boo ko gën a rëy amut xew li sëñ Tuubaa di seetlee itam kenn bëgg tey suñu tarub ne woon def ko ni yeneen bis yi dara jëru ko kon murid bi nekk na xam ne bis màggal gi moom bisama lépp lu am ci bernde lépp lu am ci teraanga lépp lu am ci ak mbaax ak jaab yàlla na ko ci feeñal maa ngi koy dénk sama bopp di ko dénk mbooloo mépp man da ci loolu laa nekk te maa ngi koy dénk itam képp koo xam ne itam yaa ngi la sama kàddu nga waajal ko noonu man di umu benn umu benn bis bu dul bis màggal ma du ma woote bis du wujji bis bis mag suñ tuwaaw woote daal laay laay wuy si ci laay bernde woote wu ma beneen bés maa ngi dénk ñëpp ñëpp itam ne bés mooy sunu bés nun murid yëpp fu waay nekk na nga fa màggal soo mënee ñëw Tuubaa rek moo gën waaw ku am ngant nag yàlla xam na ko sëñ Tuubaa xam na ko waaw ku ko mënu moom ñëw ci bisam bii ndax sëñ Abdou Khadre kat nee na woon def lu baax a baax ne fu ne waaye defe ko ci defe ko ci kanam sëñ Tuubaa la gën waaw baax baaxee ne fu ne waaye defe ko fii fi dëkk sëñ Tuubaa la gën kon loolu mën nga wax ne benn illa ci ëllëg gi tax ñu woote magal gi Touba magal baax na fu ne fu waaye ne fe baax na waaye def ko fi ci kër suñ Touba nga xam du suñu borom delloo dara chakarto ada firaqel xisaab wajali kulli xarit xisaab lu suñu borom delloo daram kon dikk jaxase ko ci biiram loolu yaakaar naa murid bu nekk tono jo nekk war nga koo bëggal sa bopp ak yeneen njariñ yi nekk ci biir da daje ci bis bi jokk bokk geek dimbalante geek xamante geek yokku positif bi yëpp loolu yëpp am na ci biir ci biir daje waaw kon day gi Tuubaa day gi Tuubaa moom mën nga loolu am na ci bis la boo xam ni ci la bi joxe risalaam bu muy jëmee ci taalibe bi yëpp bis boo xam ne mbokk mooy gis am ñoo xam ne ñoo bokk lépp waaye magal magal la gisee Tuubaa la ñuy gisee waaw ci réew mi itam ci lépp lu fiy yëngu di ma machine dana dox waxuma réew mi waaye addina bi laay wax muy njëriñ loo xam ne àddina jëpp koy jëriñoo muy magal Tuubaa yaakaar bu ñu taxoon tey dañ koy bàyyi yaakaar naa du du wëri rek ay kaas waaye yaakaar naa bitim réew sax bu avion yi sax ñu yaakaar naa su booba danañ ngeraw ndax yëg nañ ne seen xéw la nga ci rawat nag yeneen xeeti mbërsi yi nga xam dafa am muy njëriñ loo xam ne li teg njëriñ kenn mënu ko wax kon ku maanaam ku ci ku ci ku ci weddi dara rek da ngaa seetlu liñ nekk ci njëriñ waaw benn par benn kon da xam ne Màggal Tuubaa liñ teg njëriñ yaatu na tey ëllëg door a ñëw kon ñu ngi sonn suñu bopp suñu taalibe yëpp ñu waajal ko te fas nga def ci sell ak jaam yàlla dara loo xam ne waxu sëñ tubaa ñu ñu bañ ko fay def bañ ko bañ ko koo def kat tooñ nga ko sëñ tubaa sant yàlla woote jaam yàlla woote kon ku fi indi lul loola kat nga xam ne tooñ nga sëñ tubaa ñoo ñu bari yaan kenn fa tooñ sëñ tubaa nag salaamaaleykum wa rahmatulah. ok jërë ngeen jëf mbokk yi kon dafa mel ni euh, yóbbalu màggal it am nañ ci lu doy ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax ndax dégg ngeen noonu mu ko waxee te noonu rek la ko Serigne sa mbéga ma sant la yàlla la yàlla ci bis bi yowmal xiyaam bu ñëwee fa nga nekk Serigne Saliou daan na wax ni sarti màggal mooy sant ak bernde ak jaamu yàlla daan na wax ni fu fi ñaar dende kii di ko fonk kii di ko bañ a fonk ka koy fonk du ñàkk di gis lu ko dul fonk ba faw kon nan ko fonk wasalaamaaleykum aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Amen